bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi diin ajmain allahumma laka alhamdu kullu wa ilayka yurjaul amru kullu as'adallahu zamanakum wa aslaha sha'nakum wa taabat xayaatikum mbokki jullit yi ñuy bàyyi xel ñëw ci jotaay bi ñu baaxoo ànd ak yéen ci waxtu yi di leen ñaanal suñu boroom subhanahu wa taala yéen ñuy bàyyi xel jotaay bi ak ñi ko dégg ñépp suñu borom defal leen jamono ju neex lool ak mbir yu yéwén te itam neexal seenu dund dund ga ab jullit war a taamu muy dundin woo xam ne lépp day dëppoog ngërëmal yàlla te nag ñu ñëwoon ci li ñuy wax islaaxul amri muy yéwénal mbir nit ki nu mu mën di def ba ay mbiram di yéwén ba tolof tolof yu bari suñ borom man di ko ci musal ba yu bëree bëree bari mën na koy bañ gàllankoor ci dundam ndem soob na yàlla bokk na ci itam nit ki nga xam ni dafa am yéene yi sanc ak kër moo xam kër gu yees la moo xam fu muy luye la lu mu ca mën a doon rekk waaye lu yees la daal loo xam ni da cay dëkki mën naa bind aayatul kursi yu te mu bind ko ci zanfaraan zanfaraan ab parfon la mën na ko cee binde bu noppee mu wis ko ca kër ga li fekk mi ngi nekk ci kër gi moo ko njabootam rekk suñ borom dana leen defal mucc suñ borom dana leen defal xéewal suñ borom dana leen defal tiraanga suñ boroom dana def ak njabootam itam nit ñi sopp leen te fonk leen itam ba tey ayatul kursi yu koo xam ni itam sab noonu sonal na la te amoo itam foo ko mën a joytoo boo ko bindee ñetti téeméer ak fukk ak ñett ginnaaw ba nga ko bindee ñetti téeméer ak fukk ak ñett muy limub jëysun nga sangoo ko juróom-ñaari fan yoo xam ni mën naa commencé bisub alxamis wala bisub altine ñaari bis yooyu boo ko ci nit ki commencé rek baax na bu dee nag ki koy def day jigéen la ca gën mooy mu nekk bu dee du jamono yoo xam ne daa laab mu nekk ba jamono yoo xam ne laab na ndax alquran dafa laab te fu laab la war a dugg te te itam ki koy jëfandikoo moom sax moo war a njëkk a beñ ñàkk a di jëfandikoo alquran ndax alquran léppam daa sell ba tey ki nga xam ni dafa tawat ba tawat ji sonal ko lool ba ñëpp am ci jaaxle moo xam tawati xel la moo xam tawatu yaram la moo xam wéradi xel la moo xam wéradi yaram la lu ci mën a doon rek ndeem soob na yàlla bu ko jëfe bu ko utiliser nii ñu koy waxee mën na cee jariñu mooy taqra'u yaa xayu mi ata waaxid ay ayaamin day jàng yaa xayu téeméeri yoon ak benn juróom-ñaari fan yaa xayu lay baamtu di ko baamtu téeméeri yoon ak benn ba mat juróom-ñaari fan bu ko defee sun borom dana wéral tawat ji bu dee tawati xel la bu dee tawat yaram la lum ci mën a doon rek dana daal di wér ba tey bu dee góor ñi nga xam ni dañu bëgg soxna tem temte leen moo xam jigéen ju bëgg soxna moo xam jigéen ju bëgg boroom kër moo xam góor gu bëgg soxna te itam bëgg mu doon nitug diine ji yàlla gën a taamu te itam bëgg dara bencee jafe lépp jàppandi suñ borom jàppandil na mbir yi lu sa wër sa gàtt gàtt boo soxalee lii may bëgg a wax suñ borom dana la jox boroom kër bu dee jigéen jee bu dee góor gi itam suñu borom dana la jox soxna su baax dangay wax yaa karimu yaa muhsinu yaa qadimu yaa jaamiu ñeenti baat yi rek ngay faral a wax yaa karimu yaa muhsinu yaa qadimu boo waxee yaa karimu fukki yoon nga koy wax yaa muhsinu fukki yoon nga koy wax yaa qadimu itam fukki yoon nga koy wax yaa jaamiu itam fukki yoon nga koy wax ku ko saxal sun borom dana la dénk yitte jooju nga amoon moo xam góor gi la moo xam jigéen ji la te itam lépp dana jàppandi te dara du ci jafe bu dee itam koo xam ni tolof tolof da koy faral di daaneel lu bari mucc di ko jafe lool bu saxalee di wirdu yaa muhsi boole koog sa nuqri uka fala tansa teg ca itam wa tax yaha waax ya njëkk yooyu yépp mu jiital ca aayatul kursi yu mel na ni sax moom lañ jiitaloon ci njëlbeenu waxtaan wi bu defee yaa muhsi da koy saxal bis set téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñeent teg ci itam sa nuqri uka fala tansa fukki yoon teg ci itam wa tahiyaha usnun waaya fukki yoon loolu day jiital ayatul kursi yu bu jiitalee ayatul kursi yu teg ci yaa muhsi teg ci sa nuqri uka fala tansa ayatul kursi yu moom benn yoon baax na yaa muus yi téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent sa noqoy uko falaatan sa fukki yoon wa tax yeexa usnun waaxya fukki yoon ba tey koo xam ni itam dafa am yitte ju muy bëgg moo xam ci doomu aadama la moo xam lu muy lijjanti la mu jafe ak lu mu mën a doon rek moo xam ci yëfi boppam la itam bu soxalee lii may bëgg a wax suñ borom dana ko fajal aajoom jooju waaye itam dafa mel ni yaa musi gee leerul ma bis yi day doon juróom-ñaari fan yoo xam ni bis bu set rek noonu la ko nit ki di utiliser ba pare da ngay jàng itam bu fekkee nit ki la nit ki nga xam ni aajoom la bëgg mu faju ak aajo ju mën a doon day jàng sóorat sóoratu bi ci njëkk sóoratul fatxi la bi ci topp sóoratu yaasin la bi ci topp suratul waaqia la bi ci topp suratul rahman la bi ci topp suratul jinni la bi ci topp suratul mulki la bi ci topp suratul sajda la muy juróom-ñaari saar yooyu bis bu ne ak saar bu mu ci war a jàng day def bisub samedi mu jàng suratul fatxi bisub dimaas mu jàng suratu yaasin bisub altine mu jàng suratul waaqia bisub talaata mu jàng suratul rahman bisub àllarba mu jàng suratul jinni bisub alxames mu jàng suratul mulk bisub aljuma mu jàng sooratul sajda suratul mulki moom sëriñ bi sax waxoon na ni ku ko saxal guddi gu jot guddi gu gu jot ñaari malaaka yi laaj ci bàmmeel duñ la laaj muy munkir ak nakiir ñoo xam ni seen melokaan yi foo ko takk ci raglu rek jéggi na dayo dépassé na foofa te itam ki koy saxal nii ma ko waxee juróom-ñaari fan yi mu saxale ko nii ma ko waxee sun borom subhanahu wa taala dana ko fajal ay aajoom ak aajo jo lu mu rëy rëy rëy moo xam yitte la moo xam yittey boppam la moo xam yitte la ci mbindeef lu aajo jo rëy rëy rek bu soxalee lii sun borom subhanahu wa taala dana ko ko saafaral te itam ki koy jàng ci juróom-ñaari fan yi yëpp mu saxoo làpp ndax alquran moom dafa sell te itam comme que dafa sell di wax yàlla dafa war ki nga xam ni da koy jëfandikoo mu sell itam ndax fu sell rek lay dugg loolu itam muy juróom-ñaari saar yooyu mu jar ribaat maxsuumun fi kasfil humum lu ñu saytu la saytu gu wér ni day musal képp ku ko def day wuññi say njàqare ubbi sa bunti mbégte kon ki nga xam ni mi ngi koy saxoo rek sun borom subhanahu wa dana ko defal xéewal dana ko defal tiraanga dana ko defal mucc lii itam li tax ñu bëgg cee ànd ak yéen ci jamono ju nekk rek du soreeg li sëriñ bi waxoon ni fa kullu man qad baxila bi ilmihi fa innahu qabla al mamaati yubtala xam-xam lu ko nit ki xam te jëriñuwu ci mën na ko ñàkkaat wala mu ñàkk xamaat loolu te itam bu dee mi ngi koy xamle dana ko gën a xam dana ci amu yiw ñu koy déglu itam suñ borom dana leen ca defal xéewal suñ borom dana leen ca defal tiraangay adduna ak ju alaxira saadatu daaray ni kon ñu yam foofu ba beneen yoon di leen nuyu yéen ñëpp di leen ziyaar itam di leen wax ni yéen ñi nga xam ni yéen am ay laaj ak i tontu ñu ngi leen di déglu te di leen bàyyi xel ci jamono ju nekk mboolem lu fi waay laaj rek ndem soob na suñu borom buñ ko gisee danañ ko tontu tontu tontu tontin wu leer naññi ba nga xam ni ku koy ku ciy déglu rek moom man ngaa daal di bàyyi xel say laaj ndax fas alu ala dikri ni ma ko waxee woon lépp loo xam ni xamoo ko baa nga njort ci baa nga am ci yaakaar. boo ko leerloo ndem soob na yàlla nañ la ko leeral ngeen ci am ci seen seen bii di 28 pro incha allahu taala ci alxames bu jot wasalaatu wasalaamu ala rasulillah